très fort mm -hmm. sur le domaine de la médecine néna benn bis dajalé nit ñi ni len sama adina bëpp dama ko bind ba samay loxo tokki ba samay bët gët daanaka gisatut lu bari choono bi feñ na ci sama yaram bind na lu tollu 200 livres musuma nek ci yef yi nguur ak yoy 200 livres. Sëñ Tuubaa ñu ne ay tonnes 200 livres ñu ne ay tonnes. te yow kee ñuy wax. te gisuñu xaaral rek. ci dund ban waaw ci dund ban te kee ñuy wax. gisoo ko da nga koo dégg 860 et quelque. agogo millénaire. da nga koo dégg. ku ko dégg dégg ko keneen ku dégg ka dégg ka ka dégg wax ko. ba mu agsi ci yow. yow sëñ Tuubaa dañ naan diw mii gis na ko. am déet li muy bind ngi nii ñu di ko gis.

kenn nit kañ la ko fi bind moom mi nga xam ne waxtu wu nekk dañ ko yóbbu ci ay fitna ñooñu ko doon yóbbu lan moo tax ñu yóbbu ko ci li Boubacar wax laa bëgg a parce que xam nga waxtaan quand ci sëñ Touba warul ànd ay daanu ndax nak, mm-hmm. dañoo war a jàng ci moom ndax moom sëñ bi mm-hmm. vraiment wootewul pour ñu wax ko yaay kan musu koo bëgg am déet waaw ba ko bañ ko waxee ne ko yow def nañ ay enquête depuis mille huit cent quatre-vingt-trois ak quatre-vingt-huit Leclerc def rapport yi ak Merlin ñu wax ne ko ne ko yow yaa ngi doon fomenter ay guerre mhm. mu ne inni wa ma qaalakum ñoom la ñu wax ci philosophie laa la wax wa ma qaalakum la ñu wax ne mhm. inni ujaahidu ne damay jihaad mhm. d'accord saya saadixun dëgg la eh, déglul de mais nak lan moy jihad ci man inni ujahidu bil ulumi wa bi tuqa man sama ah, sama jihad ci xam-xam la xam-xam la mhm. ak ragal yalla kon xam nga kon justifier na li nga wax ni xam-xam ak ragal yalla ne alors alors ci réponse ki la jëm pardon la jëm mhm. alors ñu ne ko léegi malgré lolu li nga wax dalul suñu xel donc soxla nañ la ndar dañ la bëgg waxtaan a yow mu ñoo ndar ma ramassé conseil privé ñu dajaloo ne décidé nañ waxuñu dañ lay àtte ah dañ ne ko après avoir entendu la lecture des rapports de Merlet et Leclerc mm-hmm. d'accord décidé nañ ne yow dañu lay yóbbu Gabon mm. yaa ngi mm. ñu yóbbu ko Gabon mm-hmm. nee yàlla sunu borom moo ko ni mm. ak yonent bi sallallahu alayhi wa liggéey bii ngay liggéeykat liggéey lii tax nit ñi am jàmm la mu ne man sasoo naa ko xam nga sasoo sasoo mooy détermination yenoo naa mm-hmm. ah mm-hmm. ñu yóbbu ko di ko tooñ muy bind di ko teg fitna muy recherche tàqale ko ak njabootam mu muñ rafetal ko sacrifier lépp mu rafetal am yegg na sax ci wax ci benn xasida gu ñuy wax ala inna ni arjo allahuma inna aadaa'i wa aadaa'ika mm-hmm. alxawni fi lbahri kamaal xaw mm-hmm. kamaal xaw xalilaka fi naari mm-hmm. yow yàlla sunu borom sa noon yii tey sama noon xam nga mooy lan philosophiquement parlant mooy man amuma noon képp ku la noonu rek sama noonu yaa ngi dégg alxaw nii fil bahri tëmbal nañ ma ci géej gi kama alxaw xalilaka fi naari naka ñu sànne woon sa xarit ba ibrahima ci sawala sa waxaatabtoo biyaa naari kuuni baddan wa salaaman ala ibrahima yonent yàlla ibrahima ne yàlla suñu borom <laughs> fexeel ba sawara si na ànd ak dal ak tey bu mu lor sëñ sëñ tubaa ñaanul ñaanul instant boobu ñaanul ndimbal mais daf ne yàlla suñu dama lay gën a sant man ci li ñu ma def reconnaissance sant yàlla pourquoi parce que yàlla dafa ne la in shakartum la azidannakum bu ngeen sante ma dolli mm. donc pardon bi fa laa jëm non, non, c'est très important parce que pardon parce que pardon en tant qu'acte beaucoup de pardon en tant que valeur. C'est maintenant la philosophie des valeurs là. Mhm. bokkul ak euh, pardon en tant que mhm. mais acte bi valeur moo ko sous-tendre moom moo war a mën a tax nga war a mën a jëfee ni tubaab bi jàpp la ah. noot la lu nekk mu xañ la ko moo tax ma tënk rek pour ba ñu développé mën ne ko bookar njëgale weesuwul la ko tubaab bi def yëpp ñëpp xam jaar-jaar ba yëpp mu ne ko non seulement